mbokk yi dalati leen ak jàmm ci rajo réew mi fm 97 point 5 ñoo ngi leen di nuyu di rafetlu ànd bi seen émission gox bi ci dibéer gi di daral aada kundul di candidat ca mairie bu eh, njaareem limaamu laay fare ca géejawaay naka noonu sax bokk ci jeunesse espoir renouveau ak vie politique eh, loole sax dinañ ko leeral ci biir eh, ci biir émission bi naka noonu sax mu bokk ci coalition gox bu bees liñ nar waxtaane ponk yi bokk bokk na ci eh, ban programme la amee naka noonu ambition bi ak élection locale yi ñu jàpp ko ci weeru janvier atum 2022 ki fare ci kàddu gi Mass Thiam ci xarale gi aadama jàll ñoo ngi leen di nuyu di rafetlu ànd bi sëñ Koundoul ñoo ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci rajo mi FM salaamaaleykum euh, Serigne Mass mhm. Thiam mhm. jërëjëf si invitation bi mhm. euh, ñu ngi lay gërëm di la sant di nuyu auditeurs yi euh, bu rajo réew mi afam di am contentement trop di ñëw di toog ak yow pour waxtaanee ak yow si activité bi actualité yi yow si di nuyu waa Géejawaay plus particulièrement waa commune de Ndiarème Limamoulaye bu Guédiawaye tout d'abord dañ lay bàyyi nga présenter commune bu Ndiarème Limamoulaye fan la faree ci Dakar waaw commune de Ndiarème Limamoulaye mi ngi nekk ci euh, département de Guédiawaye mhm. comme ni ñu ko xamee donc département de Guédiawaye cinq commune la mhm. muy commune euh, Wakhinane Nimzatt euh, commune Golf Sud Sam mhm. Notaire Gounass ak Ndiarème Limamoulaye donc Ndiarème Limamoulaye boo xam ne ñun foofu lañ juddoo foofu lañ yaroo foofu lan màggee defee fa sunu primaire école élémentaire defee fa sunu collège defee fa aussi sunu lycée donc commune boobu tey si wàllu action ay activité mhm. commune boobu tey lan bëgg mhm. mu développé moom moo waral sunu engagement mhm. ba euh, ci commune boobee sax euh, la ñuy des gis nañ euh, gox yi fare ci banlieue bi dañuy jànkoonteel ay jafe-jafe yu bëri lan nga mën a teg suñu loxo nga xam ne commune bu Njaareem Limaamulaay moo ngi koy jànkonteel ci ay jafe-jafe ba nga bëgg nii da nga nga ci élection locale waa jafe-jafe yi Euh, bëri na. Mhm. Euh, en commençant su fekkee ne aussi commune lañ wax. Mhm. ñëpp xam na ne avec acte trois de décentralisation bi. Mhm. dafa am quatorze euh, compétence transférées. yoo xam na teg na ko ci commune yi. donc suñu ñëwee ci premier ponk bi. mën nañu wax ci wàllu santé bi. donc ci wàllu santé bi gis na ni yenn post de santé yi. parce que commune aussi moom. poste de santé day dépendre ci commune. Mhm. donc nekkul euh, benn hôpital niveau un wala niveau deux ba nga xam ne day dépendre au niveau de la mairie de la ville par exemple. Mhm. donc gis na ne yenn poste de santé yi. Mhm. Euh, yu nekk ci commune bi euh, ñi ngi jàkkoon teg ay jafe-jafe. bien sûr que am na ay liggéey loo xam ne ñu fa nekk ni muy acteurs yi. ñi ngi koy def di dimbale population bu fi nekk si wàllu paludisme mhm. si wàllu aussi prise en charge jigéen mhm. ñi jigéen ñu ëmb ñi euh, si wàllu aussi même covid activité yu fi amoon yi yëpp ñoom ñu ngi koy euh, mhm. ñu ngi siy def seen warugar waaye gis nañ si si côté santé bi dafa sooxe parce que soo xoolee euh, poste de santé yi dañoo manqué matériel. Hmm, d' abord ñaata poste de santé moo am ci commune bi. waaw commune commune bi commune Ndiarème Limamoulaye poste de santé amoo cinq. Hmm. benn poste de santé la moom moo nekk commune Ndiarème de santé bi mën na couvrir population bi yëpp. voilà looloo tax euh, ñun suñ ñëwee euh, même euh, poste de santé bi suñ gisee day accueillir même. Hmm. parce que nombre bu fi nekk bi. mënul couvrir dans un premier temps population bi fi nekk yëpp. mais am na sax ay zones yoo xam ne. dañuy jugee feneen donc di ñëw aussi di fajoo ci poste de santé bi mhm. donc looloo tax yenn problème yi di am moo tax ci programme mhm. donc bëgg nañ ci aussi mhm. programme bi sax dinañ ci dellu ci biiru waxtaan bi alors euh, Limaamu Laay Njaareem Limaamu Laay am na maire lan moo ci taxawaayu maire bi est que moom def na ci ay jéego waaw ñi ngi euh, foofu noonu sax lan euh, waroon tàmbalee. Mhm. donc euh, comme vous le savez ñun sunu maire sortant. Mhm. mu ngi tudd Mamadou di Seye. Mhm. yàlla na ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana. donc moom moom moo nekkoon sunu maire. ba mu fi doon nekk tamit gis na fi liggéey lu mu fi def. surtout si wàllu social bi. donc loolu noonu amul kenn koo xam ne au niveau de la commune de Ndiarème Limamoulaye da koy nattandal. donc ñi ngi ñaanal. Euh, foofu mu tëdd mhm. euh, mu mu gënal ko fii mu jugee mhm. yàlla yërëm ko te xaare ko àjjana mhm. donc ñun aussi lu nu mën a def li mooy liggéey bu mu def bi lu si baax ñu xool ñun dañuy dañ koy jël gën ko def mu nekk suñu sacerdoce ñu kiy taxawee di si waxee lépp loo xam ne ay amélioration la loo xam ne ñun jàpp nañ ni population bi suñu falee dinañ ko def. Mhm. ñun aussi loolu euh, bëgg nañ ko. Mhm. waaye tamit buñ di fàttee chaque fois dama koy wax mooy nekkul rek au niveau de la mairie moom moo war a euh, saytu wàllu lépp santé parce que c'est un euh, processus boo xam ne. muy population bi citoyen bi mhm. muy autorité yoo xam ne dañoo nekk au niveau central ñëpp ñoo si war a jàpp mais daa la mais pour que problème yi au niveau de la banlieue en général. Mm -hmm. et au niveau de la commune de Ndiarème Limamoulaye en particulier mm -hmm. pour que problème yi ñu mën ko solutionner. Mhm. donc actuellement nii si wàllu santé bi rek laa wax. Mhm. donc suñu gisee nii eh, par exemple que ba Baydi Sène moo génn àdduna yàlla na ko yàlla yërëm kan moo ko wuutu actuellement. Ah, Baydi Sèye en fait. Baydi Sène kon euh, mhm. donc euh, euh, su ma juumul. pour trois mois kese la. parce mm. que euh, élection yi. Euh, trois mois kese moo si des mm-hmm. donc moom day continuer rek mm-hmm. euh, après gars yi mën a dem mm-hmm. élection municipale yi pour janvier deux mille vingt deux alors ci beneen secteur wàllu éducation voilà si wàllu éducation aussi gis na ni ñun en tant que ay acteurs de développement ñu ñu ñu ngi nekk di xool lépp loo xam ne si école élémentaire yi mu ngi fi les problèmes su ma joxee exemple école ñun yuñ jàngee. Mhm. on était école référence la woon mais actuellement il y a des problèmes au niveau des écoles problème inscription yi ñu ngi fa problème de gestion même de l'école avec son milieu. Mhm. mi ngi fa donc gis na ni vétusté euh, parfois euh, classe yi donc c'est tout problème yoo xam ne organisation la laaj. Mhm. et aussi euh, surtout doter des moyens. au corps enseignant. Mhm. na xam ne ay ay ay jàmbaar lan ñu ngi def lu nekk lu mën ak lu mënul pour l'éducation de nos enfants. Mhm. donc nous nous devons faire euh, de l'éducation un moyen de développement boo xam ne à partir de la base. Mhm. parce que comme tabax la fondement bi su baaxul. au niveau de l'école donc euh, vous avez beau mis des moyens des moyens. donc doo mën a am li nga bëgg. parce que su fekkee ne yow base bi départ bi baaxul même élèves lacune yooyu dañ koy traîner au niveau collège. Mhm. lacune yooyu dañ koy traîner au niveau lycée ba au niveau universitaire. Mhm. donc actuellement nous devons revoir notre système à de la base pour que élèves yi ñu leen di suñu doom yi. ñu leen di encadrer parce que am na ay fléaux yoo xam ne c'est des fléaux internes certes mhm. mais aussi y a des fléaux yoo xam ne xale yi léegi euh, dafa am lu naan ay jeux de hasard yoo xam ne ay problème la ay ay yeneen yoo internet bi. Mhm. réseaux sociaux yi ainsi de suite ba léegi xale bi même mënatul concentré wu pour jàng. Mhm. donc deux problèmes yooyu yëpp. Mhm. c' est des problèmes liés donc dañ ko war a boole. xool quelles son les solutions idoines à trouver. pour que école bi mu doon une école excellence. ba nga xam ne nous pouvons avoir demain euh, des leaders yoo xam ne dinañ mën a ancrer. dina mën a propulser le développement du mhm, pays. Mhm. ak euh, ci jamono ji ubbite école bi gis nañu way jur yu bëri dañuy jànkonteel ay jafe-jafe ñeel inscription bi ku kuréel yu njaboote sax euh, étudiants yi ak jàngalekat yi euh, def na ci sax euh, yuuxu na si wàllu wala sax yëglu na si jur yu bëri daal seen loxo jotul seen ginnaaw yow en tant que acteur de développement ak acteur politique yan jéego nga si def pour wallu population ba yeewoo seen njaareem li moom lay waaw comme nuñ ko waxee rek ñun moom éducation moom dafa doon sunu sunu sacerdoce éducation santé mhm. problème yi lu tax mu am buñ fàtte ne aussi dañoo jógee situation Covid bu bëri. Mhm. bu métti ñëpp xam na ne aussi la banlieue le niveau nu mu méttee. Mhm. donc yooyu noonu yëpp moom moo boole ba aussi foog ñu wax ko mooy une mauvaise distribution par exemple tey su ne au niveau de l' état central par exemple budget bi. Mhm. lii leen si def pour école. def naa ne suñ doté woon des moyens à l' publique. def naa ne ñoom duñ soxla sax ay élèves yi di fay ay inscription parce que éducation. Euh, éducation dafa war a doon ay fondamental yoo xam ne ay fondamentaux yoo xam ne dañ ko war a euh, teg jox ko gëddëm mhm. pour que xamuy xale bi muy enseignant bi muy yëpp kenn bu mu am problème pour éducation mhm. donc ñun lu ñuy def li par rapport comme ni ko doon defee même bien avant d'être candidat au niveau de la mairie de Ndiarème Limamoulaye mhm. mooy ñun dañuy doter élèves yi de fourniture dañuy doter élèves yi d'encadrement mhm. dañuy doter élèves yi dañ leen di accompagner seeni i parents yi mhm. parce que euh, parents yi aussi il faut que ñoom ñuy topp seen jàng xale di leen encadrer donc problème yi nag nous avons vu ça mais comme nous sommes euh, côté acteur de développement mmh. par rapport à nos donc ñun ñu ngi participer pour euh, ñenn cas yoo xam ne c'est des cas mhm. pour xool na la leen di encadrer te ci encadrement boobu aussi yamul rek tey même ñun dañoo am benn plateforme boo xam ne même yow élève bi euh, par exemple soo nekkee CI da ngay fexe ñu nekk CP ñi. Mhm. ñoom ñoo lay jàngal. Mhm. nekk ce dañuy jàppalante mouvement bi am ay ñoo xam ne dañuy jàppale élèves yi. Mhm. du si jàppale bi nekkul ak si moyen bi. jàppale bi day doon. wàllu euh, renforcement wàllu renforcement bi wàllu orientation yi. Euh, waaye wàllu conseil ba nga xam ne ñëpp ñoo xam ne jaar nañ fii. te te tey ñu ñuy nekk ay docteur ñu nekk ay ingénieur di won xale yi di leen wan ay référence mhm. il faut xale yi aussi ñu leen jàng culture de l'excellence mhm. di leen won yu baax yi ñu looloo tax chaque décembre dañuy organiser des activités de génie en herbe mhm. di woo xale yi di leen distribuer ay prix pour que ñoom suñ gisee ni xale yi kat euh, ñoom ñi ngi jàng ñi ngi leen di primer culture de l'excellence boobu dina am mais léegi Sénégal looy gis lu bon rek la ñuy nekk di vulgariser. Mhm. donc te loolu baaxul. Mhm. au niveau de la mentalité. de mhm. nos enfants. muy lu am solo ku wax euh, géejawaay rawatina njaareem limaamu lay wax jafe-jafe ci wàllu assainissement. waa si wàllu assainissement comme ni ko waxee euh, ñun aussi si environnement. moo tax euh, sunu mouvement bu nu yor bi. muy engagé pour l'action sociale. booloo defar sunu secteur environnement dafa bokk sunuy sacerdoce. looloo waral euh, dañ ko doon def dama manière récurrente ay activités de nettoiement. Mhm. activité yoo xam ne euh, ñun dañuy def ce que naa koy jargon bi activité de set setal. Mhm. dañ koy def souvent dañuy aussi euh, dem au niveau des lieux cultes. Mhm. à savoir ay mosquées institutions nga xam ne day nit ñi souvent dañ fay dañ fay nekk en collaboration avec les les structures étatiques ñëw di def ay désinfection ainsi de suite mais gis nañ ni problème y a un problème d'espace. Mm-hmm. problème assainissement. Euh, problème comme ni nga koy waxee yaa a des yoo xam ne que nous saluons. Mm-hmm. travaux ay pavage yooyu noonu yëpp baax na mais soo xoolee yaa ngi koy wax léegi léegi problème euh, assainissement dafa am parce que actuellement defar nga ay tali y a pas. un réseau de canalisation digne de son mais euh, ci ONAS par exemple def na fa ay canalisation mais population bi ñoo fay tour ay mbalit Euh, comment faire face à cette situation bon man au niveau de la commune mm -hmm. certes su fekkee ne euh, yenn villes yi mhm. euh, par exemple yenn tronçon général yi mhm. généraux yi kii on a def na fa ay canalisation mhm. mais au niveau de la commune mm -hmm. de Ndiarème Limamoulaye pavage yu ñu fi defee yooyu noonu y a pas de canalisation donc mooy chaque fois dama ko doon wax depuis le début donc milieu boo xam ne ñëpp ñoo ko bokk la responsabilité est partagée responsabilité partagée boobu comme ni nga ko wax loolu il faut une culture environnementale donc culture environnementale boobu mooy population bi il faut que euh, njiit ñi buñ jàpp rek ne def naa lii tabax naa lii def naa lële mais il faut des moyens d' accompagnement moyens d' accompagnement boobu moom mooy lan. Mhm. par exemple mën naa joxe benn exemple ñu so ñun parfois avec nos amis yoo xam ne euh, Modou Fall Sénégal propre ainsi de suite. Mhm. dañuy dem ci école yi pour euh, di jàngal élève bi. Mhm. culture environnementale pour wane ne fi milieu la. Mhm. donc su setee moom la su tilimee moom la. Mhm. de la même manière population yi aussi ñoom dañoo war a xam ne les canalisations. c'est pour évacuer ndox bi. Mhm. nekkul pour ñu siy tuur yenn déchets yoo xam ne day fat mbir bi. Mhm. ba nga xam ne ndox bi du dem. donc da leen di jural ay certains problèmes. Mhm. moo tax même chaque fois yenn activités yi par exemple ay tabaski. su jotee ñu dañuy dem si yenn dalaal yi. yenn points yi na xam ne nit ñi dañ fay jaay ay xar ak ainsi de suite di waxtaan ak ñoom pour que après euh, seen opération. ñu def nettoiement bi. en collaboration avec comme ni ma koy waxee structure étatique yi gars yi ñëw ramasser les déchets solides. Mhm. que canalisation yi ñu mën koo préserver pour l'évacuation. fa loolu moom lool pour mu am fa mu am benn politique de sensibilisation bu mag pour ko population yu mën a adhérer ci yenn causes yi. merci beaucoup donc si politique de sensibilisation boobu euh, ku xam mouvement EPAS Bodes. Mhm. moo tax ñun chaque fois même sunu suñuy def suñuy activité. volet sensibilisation da see am solo. Mhm. nous avons par exemple côté santé organisé onze éditions de don de sang. Mhm. mais chaque fois suñu ñëwee dañuy sensibiliser d' abord euh, les l'individu mhm. pour wax ko l' importance. de faire du don de sang. moom mu xam ne lii muy def acte citoyen bi nekkul certes pour moom la. mais aussi ça peut servir la population en général. ñun aussi noonu lañ koy defee. si wàllu environnement. Mhm. ba nga xam ne ban ko defee ma ngi koy wax léegi léegi euh, sunu benn xarit boo xam ne même si wàllu pneu yi dañuy ñëw euh, une fois sensibiliser leen sur les enjeux environnementaux dañuy ñëw aussi wan leen ne c'est possible même de créer des métiers verts donc ñëw jël benn pneu def ko transformation soo ko defee transformation pneu bi par exemple nga embellir ko mën na nekk si dans un lieu espace vert boo xam ne nit ñi dañ fi ñëw toog euh, nous avons use euh, par exemple école élémentaire euh, école 18 mhm. par exemple avec euh, professeurs yi fa kii fa nekkee enseignants yi mhm. directeurs yi ak yom Modou Fall par mhm. exemple dañuy ñëw avec les pneus ñu transformer ko ba pare mais si biir ñu saxal fa garab donc soo duggee di nga gis ni c'est beau dans un premier temps mais élèves yi su ñu koy gis dañ ah l'importance de l'arbre ñoom dañ koy gis donc yooyu suñ koy màggalee mhm. ñoom dinañ am culture bi ba nga xam ne ça leur permettra dans l'avenir mhm. de sensibiliser aussi leurs élèves mhm. sensibiliser leurs amis donc sensibiliser même leurs parent parce que ça aussi c'est possible di waxtaan ak seen papa yi ainsi pour que culture environnementale boobu su amee culture de sensibilisation boobu amee de manière générale bu mu yem rek ci santé bi dafa war a continuer ci éducation bi. Mhm. dafa war a compter continuer ci santé bi. Mhm. dafa war a continuer ci sport bi. Mhm. pour que euh, pour def digression pour que même violence bi bañ a am. lépp rek euh, ñun moo tax sensibilisation la ñuy def ba pare avant de passer même aux actions. pour que nit ñi mën a comprendre. lan mooy suñu objectif action. ak lan mooy solo li ngeen di li ngeen di mbëbët ak ni ngeen koy jëmmalee mais ku wax njaareem limaamu laay ba tey ci wàllu assainissement bi par exemple euh, bànqaas yi njaboote wàllu assainissement bu ñu ñëw di fa amal ay politique est-ce que par exemple dinañ boole ak les acteurs concernés les mairies ak acteurs de développement est-ce que dinañ leen boole si liggéey bi laataa ñoo tàmbali li ni mel si say kàddu juñ nga ko ci wàllu pavage bi nañoo defar ay pavage mais defuñu ay réseau de canalisation. voilà donc euh, parfois dinañu si mettre en rapport. Mhm. mais am na yoo xam ne duñ ko yëkk mhm. dañuy ñëw rek peut-être en amont. Mhm. ñun acteurs de développement yi suñ ñu woowoon. laaj ñu suñ avis yii yëpp dañu koy wax mais par exemple pavage bi ñun dañoo ñëw rek gis ni lii moo am ñun euh, noonu noonu lañ ko fekkee. mais du tee nu sommes des citoyens. Mm -hmm. maanaam ñun duñ toog di xaar suñ gisee problème. ñooy dem par exemple xool na lañ koy lijjantee na lañ mhm. koy régler euh, mën naa citer fii exemple par exemple UCG. Mhm. Euh, ñu suñ gisee ni école élémentaire yi tilim na. Mhm. dama bind lettre mouvement bi adressé ko a UCG. ñoom aussi ils ont été très disponibles. ñëw accompagner ñu pendant deux jours ak ñun ñu def nettoiement bi. yooyu noonu yëpp après ba ma bindaa leen lettre au niveau du même du stade Amadou Barry ñu ñëw ñu accompagner ñu ñoom aussi ñu ngi leen siy gërëm di leen sant si loolu. Mhm. par exemple mën naa wax aussi structure waa FERA. Mhm. su fekkee parfois tali bi euh, su amee beaucoup de sable. ñun aussi parfois da leen di woo. Mhm. ñoom aussi ñuy jàppale ci désensablement bi. yooyu noonu donc ñun ñu ngi travailler avec les structures étatiques wax naa ko léegi ci lieu de culture parfois dañuy euh, bind service d'hygiène pour désinfection lieu public yi. ñoom dañuy ñëw ñu accompagner ñu mais accompagnement boobu dafa war a doon un en amont dafa war a warul doon rek activité bi tey tey tey mu ñëw ñu def ko mais il faut que réflexion bi moom moo gën a am solo avant même passage à à l'action bi. Mhm. voilà il faut que ñu xam ne ne euh, comme. gestion par exemple yéen di nga leen teel a yëgal laataa ngeen di passer à l'action. waaw moom laa wax en fait ñoom laa wax passer à l'action bi. en fait je parle plutôt que ñoom suñuy def seen i pavage mm-hmm. donc ñoom ñooy passer à l'action sans pour autant nous informer mm-hmm. mais ñun chaque fois mooy mm-hmm. comme li ma la wax euh, chaque fois dañuy def activité dañuy adressé lettre au niveau du coordonnateur départemental UCG wala suñuy suñu bëggee service d'hygiène ñun dañuy adressé au niveau Euh, du chef de service qui est au niveau de l'hôpital Roi Baudouin mhm. su bëggee ay dons de sang ñu dañuy adressé wu au niveau de CNTS mhm. pavage yooyu ñu fa def dafa am jeexintal ci population bi wala waaw parce que pavage yooyu soo gisee euh, am na yoo xam ne Guédiawaye Ndiarème Limamoulaye mhm. ay zone yoo xam ne suuf moo fa amoon donc ñu def fa pavage donc am na euh, par exemple inond kii période hivernale bi. Mhm. donc gis na ni yenn am na quartier yoo xam ne daawul am ndox. Mhm. mais puisque dañuy def pavage bi mhm. amul canalisation bi. donc du coup ndox bi su wàccee foofu noonu lay stagné. donc du mën a jàll. parce que dafa am défaut de canalisation donc ak yeneen ak yeneen. ba pare am na soo xoolee sax même euh, y a certains euh, rues yoo xam ne ba mu si defee pavage. indi woon na des certains problèmes mhm. ay problèmes yoo xam ne dañuy gis dafa am parfois ay petits accidents mhm. donc accident yooyu da ngay gis ni parfois population bi sax muy génn di fa def ay doodaanam mhm. ay ralentisseurs yoo xam ne ralentisseurs yi parfois nu ñu koy defee du baax sax donc day causer même problème pour yenn oto yi donc yooyu noonu yëpp moo tax ma ne suñu waxtaanoon euh, jël problème bi dans sa globalité donc problème yooyu noonu yëpp mënoon na mënoon na mënoon na bañ am. kon kon mën nañu wax ni conséquence yi dafa bëri lool. voilà conséquences yi moom instant yi bëri na. Mhm. Euh, looloo tax ñun euh, ñu engagé wu pour pour apporter notre contribution. ñoom est-ce que indi nañ ci ay jooyandi. population bi. non pas population bi ñu defar euh, pavage yi. waaw ñu defar pavage bi instant bi ah. pour le moment ñëwee par exemple est-ce que ba ñëwee defaree li ni mel gis nañ ni conséquences yi commencé na see amal li wàllu inondation di jur ay accident bañ ñëwee xool état des lieux est que ñoom jéem nañu xool naka la ñuy def ba indi ci ay jooyandi. pour euh, pour euh, alléger la souffrance de la population de euh, Ndiarème Limamoulaye. voilà à ma connaissance man. awma information boobu. Mhm. moo tax chaque fois ma naan la euh, su fekkoon ne euh, kii bi ban ko doon def dañu defoon benn collectif. Mhm. donc ça permettra même problème bi su amee collectif bi da koy mën a remonter. Mhm. après ñoom ñuy indi ay solutions au fur à mesure. mais soo xoolee soo gisee c'est la population même. moom mooy dem. defar ay ralentisseur am mhm. te nu mu koy defee su fekkee ne man mi na xam ne aw ma si xam-xam mhm. donc nu mu koy defee du baax euh, norme yi sax voilà norme yi da koy faussé mhm. donc du coup oto bu fa jaar parfois soo soo deful nànk euh, mën na la indil dégâts yow par rapport est-ce que alerte ngeen oui alerte bi am na parce que avant même ñuy defar ralentisseur yi donc euh, certaines populations yoo xam ne macha allah ñoom éveillé wu nan dañoo dem mais comme nous le savons pour nga dem rek problème lay jur dañuy dem ba mujj gi population bi moom mooy wëlbatiku euh, defale yëfu boppam sans consentement même euh, de la personne qui a à effectuer le travail. Mhm. voilà ku wax njaareem Limaamu Laay wax euh, jafe-jafe ci wàllu suuf gis nañ ne coow dafay juddu ci population bi ak mairie ba am na benn projet bu ñu bëggoon a taxawal ñu tuddee ko construction d'un château de d'eau ci cadre KMS 3 gis nañ euh, population bi war rawatina sax ndaw ñi dañoo waxoon ne daanaka projet bi du fa jàll ndax seen terrain lañ fa bëgg def lii ni mel alors fan la coow li toll. waaw mais en fait euh, loolu loolu yëpp mooy euh, aussi dañ dañuy revenir euh, sur euh, le problème de la sensibilisation mooy de l'information mm -hmm. parce que tey su fekkee ne man mii ba mu juddoo ba tey mhm. si benn terrain man foofu laa doon fubalee mhm. donc man damay jàpp ne terrain bi man maa ko moom mhm. donc SDE yaa ngi koy wax ñoom ñu jàpp na terrain bi ñoom ñoo ko moom ñeneen terrain bi ñoom ñoo ko moom mhm. donc problème yooyu mhm. moom mooy soulever wu ba incompréhension yi mhm. di am après problème di si mën a kii mais euh, collectif bi macha allah ak maire bu fi nekkoon ñëpp toogoon nan waxtaan nan ba actuellement nii au niveau de Daaru donc les travaux foofu noonu ñu ngi déroulé wu pour le moment instant loolu noonu laa si xam. Mhm. mais terrain bi ba léegi ndaw ñi ñoo ko ñoo koy jëfandikoo wala projet bi dafa mujj jaar. non non projet bi moom fa jaar parce que. Mhm. instant comme nu wax nii xam nga foofu sax ñun ba ñu nekk xale. Mhm. nan la ko doon tuddee forage. donc forage instant nga xam ne naan terrain forage. donc ba xam actuellement nii. information fii du clair ba nga xam ne est-ce bi kii moo ko moom wala kële moo ko moom wala Euh, euh, manque d'information euh, d'info de communication boo mm. xam ne gis nañ ko au niveau de nos communes mm-hmm. te ñun aussi loolu noonu tamit dinañ si jéem jéem a xar suñu tànk tubéy une fois à la tête euh, de la mairie de Ndiarème Limamoulaye pour que population bi di am la bonne information. Mhm. et ça c'est important. muy lu am solo yéen a ngi ci rajo Rewmi FM 97.5 seen émission gox bi ci dibéer gi di dalal Ada Coundoul di candidat ca Ndiarème Limamoulaye tey ñuy waxtaanee ci euh, boobile sax gox seeni i jafe ba tey ci émission bi Ada Coundoul la ñuy àddu ci maire bi te mu jiite boobu la gox te mu génnoon àdduna gis nañ moom mu ngi bokke woon ci bonn bokk yaakaar naka noonu ci APR alors moom ba mu fa toogee ku génn àdduna la dina jafe nga yëkkati ay kàddu ci ginnaaw mais alors moom yoriñ bu mu def ci wàllu gestion bi yow naka nga ko gisee ci wàllu liggéey bi waaw comme ni mu ko waxee rek si euh, wàllu gestion bi euh, ñun nekkul ay niilis mhm. maanaam du ne lii baaxul mhm. lépp baaxul am na lu baax. Mhm. donc lu baax li wax naa ko léegi léegi. si wàllu social bi. Mhm. gis na ni euh, moom nu mu fi nekkee woon. Mhm. donc képp ko xam euh, monsieur le maire euh, Mamadou Baydi Seye. gis na nu mu doon jàppale social parce que euh, au niveau de la commune donc gis na on a des problèmes si wàllu emploi on a des problèmes de niveau de pauvreté. donc nit ki ñu aussi. Euh, bala muy tal yenn yi. Mhm. il faut aussi nga teg ko dans de très bonnes condition mhm. donc yooyu noonu gis nañ ci macha allah liggéey na si. Mhm. donc ñun mooy comme li nuy wax li aussi il faut que mm, euh, population bi. maa ngi wax euh, gestion participative il faut que ñu xam lan mooy exactement rôle lu maire. compétence maire fan la yem. il faut aussi population mais loolu même sax candidat yi ñi nga xam ne ay candidat à la candidature lañ ñu bëri comprendre duñ ko am na ñoo xam ne bu ma leen dalalee fii ñu toog dañuy diggee ba diggaloo xamante ne du seen compétence voilà looloo tax man ba may tàmbalee samay wax euh, dafa leer mhm. dama ne ba ma njëkkee ñëw dama ne man même suñ ma falee mhm. au niveau de la mairie de Ndiarème Limamoulaye mhm. sama compétence fu muy yem au niveau de la santé si poste de santé bi la du ma dara roi candidats yi xam lan mooy seen domaine de compétence. Mm-hmm. il faut aussi ñu tàmmal ñun candidats yi di wax les électeurs. Mm-hmm. lan mooy réellement euh, sunu programme. Mm-hmm. sunu objectif sunu mën-mën. ak loo xam ne namm naan ko parce que gestion bi. bul bëgg gañe rek di digg nit ñi loo xam ne mënoo ko. gis nga su fekkee yow gañe rek moo la soxal nga digg nit ñi loo xam ne mënoo ko une fois à la tête gestion bu métti ngay def. gestion boo xam ne mënatoo ko looloo waral ngay dugg si yenn yi. Mhm. problème yu bëri en amont lay départ. Mhm. moo tax ñun suñu programme lan la koy tegal. Mhm. ci programme bi dinañ si dellu si. ba ci yorin bi junj nga ko nga ni moom ci wàllu social bi la gën a teg ay jéego alors yeneen action yan action yu concrète la defaat te njaareem Limaamu Laay te ñu mën see teg loxo. waaw instant yi mën na si dans le domaine sportif. parce que man mi di wax ak yow président d'AIC la. donc gis naa lu mu si AIC yi. loolu yëpp moom mi ngi doon respecté ses domaines de compétence yi foofu. Mhm. Euh, mën nañ wax aussi lu ñu doon def si wàllu éducation bi. Mhm. donc da doon def macha allah si éducation bi ba di def. loo xam ne sax nekkul ci commune am mhm. te suñ ko doon wax maa ngi amoon taw sama beneen xarit boo xam ne euh, au niveau de Sam par exemple euh, parfois notre maire da leen doon dimbale chaque fois ñoom suñu waxee ñu ne noo ñun hors zone lañ def donc loolu aussi da ko doon def ak yeneen ak yeneen yoo xam ne mi ngi ko doon parce que soo ne maire parce que nekkul ne lépp looy def rek day visible. Mhm. il y a des yoo xam ne ci suuf la parce que c'est ça fait partie de réalité mhm. yooyu noonu yëpp nit ñi seddeel ko ko. Mhm. donc euh, comme lu ma wax rek am na lu mu fi def donc ñun euh, suñu ñëwee lépp loo xam ne lu baax la. dañuy xool na lay def ba yokk ko en rapport aussi avec. les euh, dispositions et réglementations. Mm de l'acte 3 de la décentralisation pour aussi ñu ñu ñëw indi benn renouveau te renouveau bi parce que euh, actuellement comme ni ñu ko xamee dafa am yeneen enjeu yoo xam ne am na au niveau mondial te Sénégal euh, si àdduna la bokk donc il faut que ñu xool na la ñuy adopté par rapport à ça est-ce que njaareem Limaamu Laay am na ay ressources yoo xamante ni boo ko jiitee di nga ciy mën a doxal euh, ba xool naka ngay def ba jëmalee kanam boobi lay localité waaw comme ni ñuy wax rek macha allah njaareem Limaamu Laay ku ko xam-xam ne nous avons des ressources humaines macha allah am na fa. Mhm. Euh, suñu ressources humaines aussi euh, nous avons même su bëriwul nu nous reste de l' mhm. donc espace boobu mën nañ par exemple euh, suñu jëlee dans le domaine sportif. Mhm. nit ñi xam na ne la population majorité bi jeune la. te jeune dafa war a am fu muy exprimer son corps. Mm -hmm. donc pourquoi pas ne pas seulement se focaliser su ay construction construction comme que dañ ne ñoo ko bokk. ñoo ko moom. il faut ñu def tàmm di defar ay édifices yoo xam ne. Mhm. c'est pour euh, ça peut servir à tout le monde au lieu que ñu def ay édifices ay kër yoo xam ne dañuy ñëw par exemple yow ma daggal la terrain bi nga ñëw tabax fa il faut penser. Euh, pourquoi pas a créer à, à des structures yoo xam ne day générer de l'emploi pour les jeunes ainsi de suite. Mhm. donc ñun saa su ñëwee au niveau de la mairie. Mm action yooyu la ñuy def par rapport à nos ressources qu'on a. Mhm. Ndiarème Limamoulaye nous avons la mer. Mhm. nous avons littoral. Mhm. donc nous avons des espaces nous avons ah, des. littoral bi ñuy caxat caxatee. waaw loolu noonu yëpp littoral moo tax yëpp su ñëwee mooy comme li ma la wax rek espace bi. def naa population bi su fekkee ne moom moom moo. soxla Géejawaay ak nu mu amee woon espace boo boo mayul fii at si kanam daanaka espace bi yëpp dina dañ ndax gis nañ littoral bi gis nga niñ koy caxat caxatee am nay kuréel yi ciy jëkk di ci yëglu rawatina sax forum civil bu faree ca Géejawaay. waaw waaw loolu noonu même forum civil bi euh, de passage ñuy nuyu. Euh, Michel Mendy Michel Mendy. Mm-hmm. donc man mii si collectif boobu ngay wax man si laa bokk. mooy mm-hmm. collectif aar sunu littoral. Mm-hmm. donc aar sunu littoral bi lu ko tax a jóg. mooy comme mooy wax rek loo xam ne ñoo ko bokk nañ si def loo xam ne pour ñëpp la bu mu rek nekk pour benn partie parce que loolu mën na jur ay euh, frustration wala muy jur ay problème alors fan la xeex bi toll. waa xeex bi fu mu toll instant yi gisoon nga ko euh, jëkkoon nañ euh, am na loo xam ne dégg euh, kii woon nañ ko joxe woon nañ ko ban kase ko. Mhm. donc xeex bi ba léegi ñu ngi si. di mhm. di rencontrer donc les autorités administratives. Mm-hmm. actuellement comme euh, c'est des dossiers. Mm-hmm. Euh, xeex bi actuellement daal ñun foofu la nekk. Mm-hmm. pour le moment. juñ nga ko say kàddu ñu dugg ci élection locale yi jàpp ko ci weeru janvier atum deux mille vingt deux yéen ngeen taxawal coalition gox bu bees bu géejewaay alors coalition bi ñenn ñoo ko composé. waaw merci beaucoup euh, en fait coalition gox yu bees nekkule coalition gox yu bees bu géejewaay. c'est euh, national Euh, donc ñu ko jiite ñi. Mhm. mooy comme ni mu ko waxee gox yu bees. c'est pour le renouveau de la vie politique. Mhm. avec les jeunes mais aussi avec de nouveaux acteurs. Mhm. et aussi travailler à partir de la base. pour apporter notre contribution au développement de notre pays. donc gox yu bees lu ko indi. Euh, comme ni nga xamee nous sommes des acteurs de développement dañoo def constat. donc constat bi nu déparé gis nañ ni euh, soo ne sax tey soo ne politicien la lan la lay wax. Ah, daanaka image bu ñaaw la image bu ñaaw. Mm-hmm. donc te politique c'est un noble. Mm-hmm. donc su ma nee métier noble. mooy politique daanaka du métier de. non non su ma nee politique c'est un métier noble waxuma politique politicienne journalisme sax politique la. Mm-hmm. mais c'est l'art de gérer la cité. voilà donc ñun même su nekkee ci entreprise bi. comment gérer l'entreprise. c'est de la politique. donc mais ñun moo tax ma ne la le renouveau de la vie politique. loolu tax ma ne la métier bu noble la mais pas nu koy defee. Mhm. Euh, xam naa ne euh, ba nga naan du métier. c' est par rapport un maire par exemple da nga war a am qualification. Mhm. di liggéey bis boo wàccee dem gérer. les affaires de la mairie ça c'est possible mhm. parce que y a équipe administrative boo xam ne moom mooy gérer les affaires courantes quotidiennes mhm. de la mairie mhm. yooyu noonu aussi dañ ko war a inculquer culture boo xam ne dañ ko war a inculquer nos populations nos futurs leaders ñun gox yu bees si renouveau suñ si constat boobu la déparé ñu gis ni tey benn Aada Coundoul day nekk Guédiawaye benn Jupiter loo day nekk Pikine benn benn Ahmed Diallo day nekk Ngexoox benn Mamadou Dioum day nekk Diourbel di liggéey ba pare dañ naan euh, nous sommes des jeunes. Mm-hmm. mais Sénégal presque la majorité c'est une population jeune. Mm-hmm. mais foo dem instance de décision yi vous trouver par les jeunes. Mm-hmm. ñu ne lii problème la. donc pourquoi pas les jeunes soit au niveau des instances de décision accompagnés par les nouveaux acteurs parce que ñu tàmmalul gérer. kan ngay gérer. est-ce que ndaw ñi tamit am nañ euh, compétence wala sax am nañ yenn volonté yi pour jël yenn dogal ci yenn instance yi gis nañ à chaque fois ñoom ci yenn kuréel yi rawatina ci formation politique yi daanaka si ginnaaw rek la ñuy nekk duñ jiite yenn post de responsabilité yi. waaw moo tax ma ne la le problème est mhm. donc ndaw bi su fekkee ne yow euh, ku mag ki mhm. comme li ngay wax si parti politique bi dañuy ñëw ne la euh, cellule. réservé aux jeunes. Mhm. donc euh, ay ay ay nga nekk foofu donc yow kan ngay accéder au niveau euh, poste responsabilité moo tax ma ne la il faut penser autrement la politique. Mhm. donc ñun looloo tax ñun ñu regroupé wu. au sein de gox yu bees. Mhm. ba ñu regroupé c'est des acteurs de développement koo xam ne par exemple soo jëlee benn aada kundul nga xam ne kii. depuis pris de dix ans mi ngi si terrain bi si wàllu sport. si mhm. wàllu santé si wàllu environnement ak yeneen ak yeneen ak yeneen expertise yu ñeneen ñi am. Mhm. ñun ñu boole ko. Mhm. ban ko boole ñu taxawal coalition gox yu bees. coalition bi nag c' par rapport il faut que ñuy apporter des pro des solutions par rapport au problème du moment. ñu mën a problème du moment tey yeneen coalition yëpp soo xoolee dangay wax euh, candidat à la candidature ñun gox yi bees loolu l njëkk dindi. par exemple tey Aada Kundu su nekkee candidat au niveau de Niary Limamoulaye kenn du fa nekkaat. Mhm. ñun loolu la njëkk. seen coalition bi ba ngeen ko taxaw kañ ngeen ko taxawal. coalition bi ñu ngi ko taxawal euh, dañoo teel a par rapport au problème. Mhm. mais lancement bi ñu ngi ko def au mois de juillet. Mhm. donc anticipation boobu ñu ngi ko def. ñu ngi ko defee dañoo ñëw ku nekk nga indi sa mouvement. mais ku nekk sa mouvement dootoo ko tudduti. mais amul parti politique lépp ay mouvement si si am na parti politique parce que. Euh, combien euh, am na RPD. Mhm. Euh, am na USL de Maître Tine. Mhm. parce que comme que nous nous sommes des démocrates. il faut mhm. qu'on respecte aussi les textes. dañ ne il faut un parti une coalition de parti légalement constitués. donc ñun suñu coalition c'est une coalition de partis légalement constitués avec des partis politiques et des mouvements. loolu tax ma ne la sama wax chaque fois nekkul. parti politique yëpp a bon. Mhm. nekkul aussi parce que gestion bi moom la gars yi parfois di di wax ni baax na est-ce que baaxul. Mhm. moo tax ñun dañ premièrement comme ni ma la ko waxee fii léegi léegi il faut que les jeunes soient candidats. Mm -hmm. deuxièmement il faut sécuriser la can les candidatures des nouveaux acteurs. Mhm. sécuriser bi mooy lan actuellement da ngay ñëw code électoral bi vous avez vu comment il est un peu compliqué. c'est pour cela même démb ñun ñëpp. coalition gox yu bees on était à Diourbel avec l' expert Ndiaga. Ndiaga Sylla Ndiaga Sylla moo ñu defar suñu séminaire. Mhm. parce que il faut que ñu apporter benn rupture. Mhm. pour que euh, tey Ada Coundoul du dem pendant plus de cinq ans nekk si terrain bi dem ba dernière minute dépôt dossier bi di am problème. Mhm. donc ñun sécurisation boobu dañ ko def. il faut aussi comme ni nga ko waxee nii coalition bi si nekk nii c' est des gens yoo xam ne ils ont des ils ont des. Euh, background. des backgrounds. Mm -hmm. des entrepreneurs. Mm -hmm. des chefs d'entreprise. Euh, des cadres. Mm de suite. Mm-hmm. donc yéen nag par exemple naka ngeen di duggee ci élection bi gis nañ coalition yu judd ci kuje gi bëri na lool coalition Yewwi Askan Wi coalition Wallu Askan Wi coalition Gëm Sa Bopp ak yéen seen coalition bi ngeen taxawal muy gox bu bees ndax naka ngeen ni naka ngeen ni duggee ci élection bi maanaam naka ngeen ni falee par exemple ni diw moo ci rek njaareem limaamu laay diw moo nekk fee candidat ndax d'autant plus que gis nañ coalition Yewwi Askan Wi à mairie de Dakar ñoom cinq candidats lañ am yéen naka ngeen ni solutionné boobu problème. voilà wax naa ko léegi léegi euh, ñun bant euh, ba ñu dalee liggéey dafa yàgg. Mhm. Euh, tey tey su ma jëlee sama bos mhm. donc mu nekk euh, EPAS BODES mhm. engagé pour l'action sociale booloo defa sunu Sénégal mhm. mouvement la boo xam ne c'est un mouvement national donc nous avons des candidats euh, presque un partout au Sénégal nga jël Ahmed Diallo bu nekk Ngeexoox moom aussi mu am euh, mu nekk mu yor fa mouvement am am na waa Toubatul am na waa Kër Socé am na ñu bëri ñun bën ñëwee mooy lu ma la njëkk a wax ban duggee ci coalition bi beneen mouvement amatul. Mhm. sunu premier kii tey su ne Ahmed Diallo mooy Ngéxoox. Mhm. tey euh, su fekkee masse ñëw na. Mhm. masse du mën a nekk. parce que jël na Ahmed Diallo ba pare. ci ci yan critère ngeen ko nattee day ni xool par exemple njaareem Limaamu Laay ne Adama Koundoul Aada am na fa doole moom moo fay nekk candidat wala day ni consulter ñëpp doog a fal tabb kenn voilà dañoo am benn cellule d'investiture mhm. mooy nu ma la waxee dafa am trois yi moom moo gën a am solo mhm. il faut ñu xam ne yow acteur de développement parce que euh, avec euh, ñëpp xamante naan Sénégal sant yi réyul noonu mhm. donc ñëpp xam ne ne ku nekk activité yi nga ay action yi ngay def xam wax na de la vie politique. Mm-hmm. donc dañuy xool yow même avant même nga doon candidat est-ce que yow amaloon nga jariñ sa askan bi. Mm-hmm. on doit pas attendre élection échéance électorale ñëw rek ñuy jug ñoo xam ne kenn xamu ñu ñëw di laaj baatu askan bi. surtout surtout élection locale yi. voilà gis nañu candidat yi voilà ñun dañoo xam dañoo yàgg ak population bi. Mm-hmm. xam les problèmes. yaakaar ne ni mën nañ si apporter solution. donc premièrement loolu premier critère bi. deuxième critère bi du ñëw ne par exemple maas mi amul dara lu muy liggéey maas nekkul jàppul si dara. Mhm. donc avant ngay demander quelque chose il faut ñu xam ne ah kii kat une fois que ñu teg ko fii. Mhm. nekkul lii nii moom mooy une fin en mhm. moom day engagé wu euh, pour servir. donc loolu tamit critère la boo xam ne. Euh, comité d' investisseur bi. da mhm. koy def. Mhm. comme ni nga ko junjee say kàddu kon maanaam bu ma la déggee lépp li ngeen waxtaanee ni nga waxtaanee fii lépp dafa def ngeen ko ba noppi maanaam candidat bu ne ak ci gox ba muy nekk lépp mën na laataa ñoo egg ci élection yi. tout est ok actuellement nii euh, nous avons déposé. parce soo xoolee fii nii même si coalition bi. Mhm. ñu ñooy coalition bu njëkk a déposé caution am. ba affaire tijjee parce que amul benn problème candidat à la en gros sunu objectif atteindre nañ ko. Mhm. mais aussi euh, comme danne sunu premier objectif c'était de sécuriser. Mhm. les candidatures jeunes. Mhm. et les nouveaux acteurs am na ñoo xam ne ñu bëri dañoo demoon dugg ci yeneen coalition yi su ma ne la presque chaque jour on reçoit ay dix vingt appels par jour pour yeneen acteurs yi puissent ñu rejoindre parce que jàpp nañ ni ñoom peut-être du leen investir te ñun suñu objectif c'était de sécuriser les candidatures jeunes tey par exemple su fekkoon masse ñëw na ma je donne euh, exemple euh, mairie de Gounass donc ñu ñu gis ni masse il les mêmes objectifs et les mêmes visions que nu donc ñun dañuy xool nan la ñuy jéem a mhm. euh, fexe ba masse participer mhm. aux élections au niveau mhm. de la mairie de Gounass est que tàmbali ngeen euh, saytu terrain bi xool réalité terrain bi di wàcc di xool base bi waaw loolu laa wax xam nga réalité bi moom ñun terrain bi sax mosuñ see jugee. Mhm. parce que mooy comme li ma la wax ni euh, ay acteurs lañ yoo xam ne par exemple man maa ngi si sport président Aïssé la mhm. en même temps président mouvement euh, actuellement nii su suñ étudiant nouveau bachelier yu ñu am yi mhm. ñun chaque fois dañ leen di orienté euh, demande bourse yi euh, soit si seen formation si siy continuer donc duñu yem rek soo ne banlieue nekkul ñëpp a jàng donc am na ñoo xam ne jàngul mais c'est pas une fin en soi nekkul ne yow jàngoo rek waroo réussir mm-hmm. ñooñu aussi dañ leen di orienter si mm-hmm. yenn entreprise yi pour que ñuy def ay euh, dans un premier temps amal leen dara lu jàpp mm-hmm. mu muy journalier ainsi de suite donc ñun base bi si biir la nekk donc on est toujours dedans pendant avant et après les élections mais seen coalition bi que am na doole ndax bu ñuy dégg ci wàllu langum politique bi bu ñuy wax coalition bi ñu joxee mandarga wala bu ñu joxee exemple coalition Yewwi Askan Wi la ñuy wax wala coalition Wallu Askan Wi bu waa PDS wala pourquoi pas sax bu waa Gëm sa bopp bu Bougane mais yéen duñ leen dégg gunde lan mooy jafe-jafe lan mooy problème bi ba euh, wàllu déggin bi dafa des loo waa du jafe-jafe xam nga dañ ne euh, renouveau de la vie politique. Mhm. donc nekkul ne par exemple euh, c'est normal un parti politique boo xam ne créé nan ko depuis 1960 wala 1974 aussi. Euh, média bi ñooñu lay gën a di invité ñooñu aussi lay gën a di wax mhm. mais ñun aussi comme que dañu ne renouveau leen indi. mais est-ce ngi teg ay yu concrètes ba nit ñi mën leen bàyyi xel. voilà parce que sunu ba noo def sunu lancement bi par exemple. TFM mhm. euh, ñëwoon na. ñun presse ñëwoon na waa réew mi ñëwoon ngeen. Ah. Euh, na donc mhm. actuellement ñi ngi nekk di dérouler. même au au niveau. Euh, des points les plus reculés du Sénégal mm -hmm. en train de dérouler nos actions mm mais dañoo ñëw ñu ne renouveler ñëw. Mhm. donc tey imaginer tey maas ma ñëw woo sama waa ko ñëpp waxtaan waxtaan waxtaan ne leen candidat la. Mhm. fekk yow mu ne candidat nga. Mhm. amoo récépissé. kenn investirul la. xamoo kan kan ngay dem ak. régler goo les problèmes administratifs. est-ce que yow euh, war nga taxaw naan candidat candidat candidat donc ñun moo tax en amont euh, tout ce qui est administratif dañ ko respecté du tey euh, ñu ngi ci presse bi. ñu ngi si média bi ñu ngi dem dans les télévisions. Mm-hmm. di euh, di def ay débat mm-hmm. di expliquer suñu concept. Mm-hmm. voilà donc comme ne renouveau ak rupture. on doit proposer au populations loo xam ne mooy réalité maire yi. mais loolu est-ce que dina yomb ci atum 1960 ba léegi gis nañ parti traditionnel yi ñoo jiite réew mi PS 40 ans après PDS ñëw ba tey APR mën nañu wax ñi ci PDS la juddoo après ngeen ñëw ni da ngeen di def lii di rupture est-ce dina yomb. waaw xam nga àdduna bi moom instant bi euh, dina yomb ak du yomb l'essentiel ñun dañoo ñëw pour apporter suñu contribution ku nekk yaa ngi def sa contribution. Mhm. mais ñun comme que lii leen gëm. Mhm. ñun suñ ñëwee ñi ngi rafetlu nag. Euh, ku nekk li muy liggéey. Mhm. mais ñun comme que dañoo am suñu ligne am suñuy objectif am suñuy programme. c' est la population qui va juger. Mhm. donc ñun dañuy ñëw ne population bi lii la. Mhm. donc c' au aux populations de choisir. et mhm. c' est aux que revient le droit de vote. mu na élection locale yi ñu jàpp ko ci weeru janvier atum 2022 xam naa jongante bi du yomb ca au niveau de Guédiawaye ak coalition Yewwi Askan Wi ak coalition ak yeneen coalition yi yéen ndax ngeen def yenn stratégie ngeen di laal pour mën a janoo ak yooyu la coalition notamment benn Bokk Yaakaar mu nekk coalition bu am doole gis nañ bañ ko taxawalee ba léegi coalition bi dafay gën di solide même si nag gis nañ ay ambition personnelle voilà comme ni nga ko waxee euh, donc ñun euh, rafetlu naa ko wax ne même ñu nekk coalition benn Bokk Yaakaar ñu nekk coalition Yewwi ñu nekk coalition Gëm Sa Bopp ak yeneen coalition yi ñu ñëpp lu ñu ñor mooy le développement du pays. Mm-hmm. si lu ma jàpp. Mm-hmm. donc mais aussi euh, bu ñu fàttee ne élection locale warul nekk affaire de parti. Mm-hmm. élection locale dafa war a nekk une gestion locale. man su ma nekkee euh, gox yu bees. Mhm. ma gis ni ah candidat gox yu bees bi kat moo gën pour la développement. Mhm. de mon quartier. Mhm. man même su ma nekkee si beneen coalition dama war a ñëw liggéey ànd ak moom. pour uniquement le développement de notre commune. tant jugewun jugewuñ ci affaire de parti. tant que jugewuñ ci affaire ay vote affectif. walla vote partisan. donc chaque fois lu mu ñuy jural mooy des frustrés chaque fois lu mu ñuy jural mooy après population bi ay rëccu. donc nag comme que bii nag. Mhm. macha allah population bi tijji na bëtam. Mhm. di xool il faut que gars yi di proposé des programmes. Mhm. il faut que gars yi di wax nit ñi la réalité il faut que aussi population bi xam ñoom lan moo lan la ñuy xaar. si ñun pour que ñu mën a voter dans l'objectivité. Voilà. alors jënd nga ko say kàddu muy wàllu programme Ada Coundoul di candidat te mairie bu Njaareem Limaamulaay lan mooy programme bi nga xam boo ko fësalee di nga mën mën a indi saafara ci jafe-jafe askan ba yeewoo ca Njaareem Limaamulaay. voilà donc euh, programme bi c'est par rapport euh, un peu expérience boo xam ne xaw nañ ko am. Mm-hmm. si wàllu euh, quatorze domaines transférés yi lu ma la wax. Mm-hmm. parce que dañoo ñëw avant ñu siy dugg ñu dañuy ñëw def constat. Mm-hmm. constat bi mooy tey xam nga bala nit ki bala muy liggéey. Mhm. lu muy tal mooy wérgu yaram ba pare. Mhm. donc ñun dañoo ñëw gis euh, problème yu am euh, si poste de santé yi comme que euh, parfois dafa am yoo xam ne domaine transféré la. Mhm. budget bi suñ ko voté. na xam ne lii. si santé bi la war a dem. dañ ko fay yóbbu. loolu mooy première chose deuxième chose bi il faut trouver des partenaires. essayer de collaborer. parce que comme on dit le monde maintenant c'est un village planétaire aussi euh, su ma ne partenaire y a aussi des partenaires interne fii su ne partenaire dañuy yaakaar rek euh, partenaire externe mhm. donc y a des partenaires internes même des partenaires intercommune mhm. gis ni commune bi mën na li amu ko nga dem nga benn chèque nga xool nga indi ko pour l'intérêt de la population de la population donc yooyu noonu il faut que ñu koy def ci sante bi mhm. il faut que ñuy ñuy indi war lu baax li lu baax li mooy euh, ma soo xoolee su fekkee seetlu nga. Mhm. ah ñun de ba ni nekk tout tànk bis boo ñëwee yow si poste de santé bi. Mhm. nga dagg sa ticket. bis boo daggee sa ticket garab bi foo ko daa jënde si biir. Mhm. parce que poste de santé yi si biir dañu doon am pharmacie. léegi bis boo xoolee léegi poste de santé yi dootoo gisati pharmacie bi. dina am sax mais daanaka duñu am benn garab. daanaka duñu am garab donc gestion. gestion poste de santé yi. Mm -hmm. donc ça pose problème parce que gestion yi bu ñu ne nekkul rek au niveau du poste de santé dépend de la mairie. Mmh. donc day am comité de santé. Mmh. donc il faut que ñun aussi ñu xam ne lu war a dem ci santé bi. Mhm. na dem ci santé mais luy waral li ni mel ndax yenn maire yi nekk ci banlieue bi seen do doole wala sax seen budget mooy néew ba yenn lu ñu mbëbët duñ ko mën a def. waa budget bi certes su fekkee ne budget bi néew na. Mhm. mais bul fàttee ne ku ñëw da ngay jënd ay ticket. Mhm. bul fàttee loolu. donc bul fàttee ne. Euh, pharmacie centrale. Mhm. day jox dotation. Mhm. ay médicaments. Mhm. certes euh, budget bi néew na mais am na ay acquis yoo xam ne comme que am nañ ko doon ko war a jox. au population pas ay certaines personnes. di ko utiliser. donc yooyu noonu c'est des choses euh, yoo xam ne une fois au niveau de la mairie côté santé bi. lépp loo xam ne si wàllu santé le et domaine transféré bi. dañ koy respecter en rapport avec les règles définies. il faut que ñuy indiwaat loolu ñu xam. naka la ñuy doxalee. Mhm. mbir yi surtout la gestion. donc euh, si ci wàllu santé bi est que li nga fi junj est-ce que c'est faisable. si wàllu santé. Mhm. ah dama ne la ba nuy nekk xale. Mhm. donc pour quoi mu nekkoon lan moo tax nekkatul. kon wàllu yorin bi moo des. voilà gestion kese la. donc il faut que aussi euh, ñuy teg les hommes qu'il faut la place qu'il faut. man mii su ma nekkee menuisier. ma nekk fi ay eh, eh, comité président commité de santé donc y a problème mhm. man mii su ma nekkee par exemple euh, di nekk gardien mhm. donc sama rôle nekkul même su ma yàggee dafa vingt ans waruma di piqûraate donc il faut que nit ñi aussi li nga jàngale li nga xam ne comme yow ni nga nekkee journaliste ñu xam ne lii mooy sa métier lii nga mën Mhm. donc yooyu tamit c' est très important. Mhm. à prendre en en compte. Mhm. donc si wa comme nga ko xamee euh, après éducation bi dafa am solo wax naa ko. wax naa ko fii léegi léegi base bi. Euh, léegi soo gisee euh, même élève bi léegi les élèves entre guillemets ne lisent plus parce que ne lisent plus mooy amul. amul ay bi bibliothèque bi da ngay dem bibliothèque bi am problème. école yi léegi même la qualité de l' enseignement donc yooyu noonu. il faut que aussi même euh, au niveau euh, au niveau dirigeant mm-hmm. donc ñuy xool yan maître la ñuy indi au niveau des écoles mm-hmm. ba ba pare aussi comme inspection yi ñu doon def ñun en tant que maire on peut bon euh, même si suñ amul benn benn dogal bi si ñoom mais mën nañ leen di euh, conseiller wala di leen suggérer mm-hmm. comme ñu ko defee inspection inspecteurs yi di ñëw le plus souvent comme nu ma ko waxee rek il faut que ñu jël loo xam ne baaxoon na fi nos valeurs parce que ñun euh, temps yi ñuy jàng école élémentaire dañoo gis de manière récurrente. Mhm. inspecteur da doon ñëw. Mhm. di xool di xool yi di xool école bi parents yi aussi il faut ñoom ñuy ñëw di xool école bi milieu bi dafa am solo environnement bi. Mhm. dafa am solo. xale bi donc yooyu noonu yëpp ci école élémentaire bi na xam ne mooy doon base. il faut qu'on les dote de moyens. et nous sommes au niveau de l'ère des TIC. bibliothèque pour lire la woon. Mhm. donc il faut doter aussi des écoles de salles informatiques salles informatiques aussi ça leur permet euh, de donner euh, de par exemple culture internet. Mhm. culture internet dafa am solo. Mhm. dès bas âge bi ñu xamal xale bi lan la war a xool ci réseaux sociaux yi ak lan la warut a xool. ci réseaux sociaux yi. donc éducation dafa am solo. assainissement dafa am solo éclairage public. dafa am solo parce que day. assainissement moom du compétence euh, compétence transférée la moom. assainissement moom laa wax. Mhm. compétence transférée mais en rapport avec ONAS. Mhm. donc il faut aussi travailler même compétence suñ ko suñ ko transféré. Mhm. il faut aussi travailler avec les autorités étatiques. lépp aussi euh, aller euh, vers comme ni ma ko waxee les institutions yenn yenn institutions extérieures yi yenn ONG yi nga xam ne ils travaillent au niveau environnement essayer de signer des partenariats. pour que ñoom ñu ñëw. Euh, avec ensemble. Mhm. ñu dimbali la si wàllu assainissement bi nga xam ne c'est un problème récurrent. Mhm. aussi espace vert yi dafa am solo il faut que ñuy defar ay espace vert yoo xam ne ça permet euh, euh, dëkk bi set. Mhm. parce que dëkk bi seen mooy bu defee espace vert rek pour bàyyi ko noonu. Mhm. espace vert derrière mën na créer de l' emploi. Mhm. ca Dubaï sax. voilà président Macky Sall yëkkati na si ay kàddu <laughs> wax ne Sénégal dafa mbedd yi dafa xaw a xaye di lool. jot na sax ñu tàmbaliwaat lii di clinique day bi ñu lancé woon ci weer yële ñu génn bañ arrêté woon ko wax na sax dinañ ko tàmbaliwaat xool naka la ñuy def ba ba mbedd Ndakaar yi daanaka sedd rawatina Sénégal yëpp. waaw loolu tamit suñu problème la xam nga tey président Euh, nanu tàmbaliwaat cleaning day yi donc moom sax euh, daf dafa wax suñ problème. Mhm. suñ problème mooy. mais Sénégal nag seetlu gi moo problème mooy. Mhm. mën nañ def dara. mais suivi bi mooy doon suivi bi mooy doon problème. te ñun instant bi soo xoolee au niveau mondial. Mhm. séminaire fii am yëpp fan lay amee Sénégal. j'avais des amis ñoo xam ne amis extérieur la. ba ñëwee fii ñun dañu demoon gis ñu réaliser des choses extraordinairement mhm. quand je suis venu j'ai dit à mon gars mais moo mon ami euh, lii nii doo ma woon noo ko defee daf ma ree mhm. dem génne ay dossier am ne ma aada ça en 2014 on a fait des séminaires au niveau de Saly <laughs> donc ñun loolu suñu problème on a tout actuellement li may wax nii mhm. lépp gars yi wax nañ ko mais ñun notre problème daanaka acteur de développement yi noosukaay lañ ko def voilà l'engagement ñun moom mooy suñu problème engagement suivi. enga mhm. il faut des actions pratiques te di continuer nekkul ne dangay def tey on est très bon en concept. defar fii wax mhm. fii wax fii waaye duñ continuer sax ci concept yi. Mhm. ñun loolu suñu problème il faut que moo tax. léegi naka lañ mën a def ba renverser la tendance. renverser la tendance mooy comme ni ko waxee ñun euh, ku si nekk na xam ne nekkoon na ci euh, activités yi. di def des actions citoyennes. di def des actions quotidiennes il faut que ñooñu ñëpp euh, ñu ñu jël ko. yóbbu ko au niveau des communes tey suñ tegee des acteurs de développement au niveau des instances de décision ah masque dina xam ne moom lii da kaa war mhm. mais tey su fekkee ne man ah man de affaire environnement xaw ma si dara mhm. ma nekk conseil environnemental taan mhm. man la laay def mënul ne donc notre problème c'est de le départ problème choix la da ngay ñëw ñu ne i aada de moom mooy euh, moom mooy candidat kon aada lay voté donc du xool sax derrière du xool programme bi du xool même la liste parce que moo tax ñun on a même proposé par rapport au euh, aux quatorze domaines transférés ñun on propose des personnes investies par profil. Mm -hmm. donc tey ñi nga xam ne santé bi ñii leen soxla donc on va investir euh, ku ne ci secteur bu mu nekk rek foofu. voilà ku nekk secteur bi nga nekk ñun noonu la ñuy investir. Mhm. léegi nag laisser nag la population. Mhm. juger laisser la population voter. Mhm. muy programme bi ci wàllu ci wàllu kii bi yeneen wàllu jumtukaay ci wàllu marché yi gis nañ euh, soxna yi dañuy jànkoonteel ay jafe-jafe ci wàllu marché yi rawatina seen fi ñuy nekk sécurité bi dafay xaw des lool lan nga ci proposé. waaw si wàllu marché yi euh, wax nañ ko euh, gis nañ ko mooy instant dañuy kii rek. revenir en arrière. Mm. par rapport au problème par exemple euh, tey am na ay des acteurs privés. Mm-hmm. du Sénégal yoo xam ne ñu ngi indi. parce que Sénégal dañoo nekk monde boo xam ne euh, c'est un monde concurrentiel. Mm-hmm. tey ku nekk mën na par exemple mën naa jël benn société étrangère mën na ñëw dugg. donc société étrangère boobu su duggee moom su fekkee lu muy proposer moom moo gën wala moom moo gën a set. Mm-hmm. en terme wax nga ko léegi mais tey suñ demee suñ marché yi loo fay kii gis ah dañuy gis des aliments yoo xam ne dañ ko war a jël mais mais dañ koy teg à l'air libre. Mm-hmm. donc lan moo tax loolu est-ce que suñu marché yi warul doon des marchés propres des marchés clean ah yooyu noonu yëpp. mu gën a méngoo ak jamono. mu gën a méngoo ak jamono ça dans un premier temps day régler problème santé. Mm-hmm. day régler problème accessibilité. Mm-hmm. noo marchés aussi est-ce que c'est accessible day régler aussi problème yuy am ci marché yi gis nañ problème sécurité parce que tey da ngay dem ci marché yi. fii lii nun koy xëccee. Mhm. donc problème yi ngay gis ni chaque année parce que Sénégal nga gis ni. marché marché tàkk affaire yooyu. nu mhm. moo ko waral donc. il branchement voilà donc moo tax même sooy defar un marché da nga war a prévoir canalisation prévoir des toilettes. Mhm. parce que euh, comme que day acquérir du monde. prévoir même pourquoi pas des systèmes de fi na xam ne tey masse ah su waree ñëw marché mu xam ne wifi mi ngi fa et day gën a toog gën a jënd ay produits. donc yooyu noonu yëpp c'est des mécanismes des moyens yoo xam ne ça peut attirer le tout ce qui est place publique. Hmm. day permettre nga attirer un les clients. et aussi day permettre d'être compétitif. Mmh. donc doo ñëw fii nga ne waaw kii nii moom moo nekk fële moom moo def lii pourquoi sénégalais bi di jënd jëndeewul ci national bi. Hmm. bàyyi dem ci international bi. Hmm. jënd jëndeewul ci man. ainsi de suite yooyu noonu yëpp nu devons repenser nos marchés. Mmh. et aussi repenser nos marchés euh, euh, yoo xam ne day génn ci marché bi. su demee si au niveau au, de la mairie que mu delluwaat si marché bi mu mhm. delluwaat si marché bi mooy réflexion yi il faut muy am mhm. éclairage yi il faut muy am il faut que marché bi di am sécurité ngay jël ay gardiens ainsi de suite mhm. yooyu noonu yëpp c' est des programmes yoo xam ne euh, mi ngi euh, c' est des activités et des actions yoo xam ne tey une fois au niveau de la mairie de Ndiarème Laye dinañ ko jéem a daanaka ñoo ngi ci njeextalu émission bi est que programme yi nga lim fii nii yëpp dem nga auprès de la population wan leen ko ngir euh, élection locale yi ñu mën la voter waaw comme euh, ni nga ko xamee euh, élection locale euh, élection porte à porte la. Mm-hmm. donc da nga war a dem kër gu nekk expliquer ko. Mm-hmm. donc commencé nan di dem ci kër yi. Mm-hmm. comme suñu message bi nu ko jàllalee nii. au niveau de la rajo réew mi. ñëpp ñoo xam ne dégg nañ ko. mën nañu ci jàppale walla ñu ñëw vers nous. ñu gën a pour que le développement de notre commune Ndiarème Limamoulaye. du tey lu ñu doon def benn dina ko jéem def fukk. en en en respectant le calendrier électoral. Mhm. mais aussi ne pas oublier eh, ni dañoo war a investir dañoo war a dugal liste dañoo war a bind nit ñi. Mm -hmm. donc travail la boo xam ne travail un peu fastidieux. Mhm. mais tra travail boo xam ne travail bu ñu neex la parce que jeexantal bi mooy seulement s'engager pour servir pour essayer d'apporter notre contribution au développement de notre pays parce que développement. base la war a démarrer. Mhm. affaire bi mën a jig si kaw. Mhm. foofu la sax euh, tubaab yi foofu la ñu rawee boo xoolee ñoom seen euh, seen communes yi daanaka seen maires yi ñooy liggéey lu bëri fii ci Sénégal li ñuy wax euh, compétence transférée boo xoolee. pays européens yi mairie yi ñoo koy def est que par exemple Ada Koundoul yow ban doye nga am ci commune bi maanaam commune bi est-ce que am nga fa doole ba nga ni da ngay yóotu mairie bi. waaw loolu noonu instant deux questions la instant euh, mhm. exemple boobu aussi. Mhm. exemple bu baax la boo xam ne dañ see war a taxaw. Mhm. parce que tax. il faut que aussi euh, population bi xam ne moom moom mooy joxe la pouvoir. dama koy wax chaque fois su may joxe exemple dafa mel ni maas man ma yor sama mille francs mhm. ma dénk la sama mille francs yow nga jël 1000 francs yi delloo ma si 500 francs ma ne la maas yaa baax. Mhm. donc yooyu noonu il faut que ñu xam ne ni les autorités population bi moo leen jox pouvoir bi. Mhm. donc nous notre rôle c'est de servir la population. donc euh, am doole bi. Euh, bon doole moo dama naan euh, entre guillemets suñu boroom rek moo xam. parce que lu nekk si xol yi parce que comme le vote c'est un vote secret. Mm. l'essentiel on a que notre programme. et aussi euh, suñ ko présenté par rapport aussi à nos actions qu'on a eu à faire. Mm-hmm. actions yi ci wàllu santé si wàllu environnement si wàllu éducation si wàllu cellule féminine. Mm-hmm. parce que loolu tamit waxuma si parce que gis nañ ni macha allah jigéen ñi ay jàmbaar lan mm-hmm. moo tax ñun bën ñëwee dañuy def du revolving parfois yenn yi. dañ leen def ay financement mhm. donc financement sans intérêt mhm. donc ñoom suñu liggéeyee est que du intérêt <laughs> financement sans intérêt amul intéret parce que ñun euh, ñun ba ñuy nekk xale mhm. mooy mooy comme ni ma ko waxee ba ñuy nekk xale man par exemple école football bu ma nekkoon maa ne parfois dañu bëgg football yi Dakar donc jigéen ñooñu suñu yaay ñi ñu ñu doon jox ñuy dem di football donc en retour ñun ñu en fait c'est de rendre la monnaie euh, chaque fois dama koy wax euh, sunu benn papa Euh, jugee na fi mais ñun tamit ba noonu nekk xale par exemple moom moo ñu doon jox ñuy dem di football ji comme ni mu ko expliqué nii tey nekku fi yaa na ko yàlla dem taxaar ko àjjana mais ay doomam ngi fi mm-hmm. moo tax ñun suñuy def di def dara di dimbali ay doomam nekkul ne pas doom yi la mais c'est pour la pièce de mm-hmm. la monnaie mais élection locale est-ce nga ci njort bu rafet élection locale on est confiant am na si njort bu rafet parce que ñun euh, euh, discours bi nuy wax c' est par rapport à la réalité du terrain. Mhm. lu la ni wax te léegi macha allah population bi. Mhm. a ah, population bi avec les nouvelles technologies léegi kenn mënatul ndax kenn. parce que rajo yi ñu ngi fi télévision yi ñu ngi fi ñëpp a fi te macha allah ñëpp a ngi utiliser seen xel. Mhm. donc nag population bi moom mooy xool lu gën si moom population bi rek moom mu am devenir bi. Ada Koundoul ñoo ngi ciy njeextalu émission bi ñu bàyyi la nga tàggatoo ak auditeurs yi rajo Rewmi FM 97 point 5. waaw. encore une fois émission bi neex na. parce que permettre nañu ñu exposer suñu programme suñu gis-gis mm-hmm. encore une fois di remercier di la féliciter Mass mm-hmm. di wax ni euh, liggéey bi nga nekk yàlla na def euh, nga doon journaliste ba lay dégg fu nekk fu nekk journaliste bu mag a mag a mag euh, parce que lii nii fierté la aussi su ma ñëwee gis des jeunes des nouveaux acteurs ñoo xam ne ñu ngi ci terrain bi parce que comme dama koy waxee di tooñ yenn journaliste parfois ay pas la doon gis ak affaire yooyu <laughs> mais léegi gis nañ ni ah, même techniciens yi Touba. Euh, mhm. di wax rek ne euh, di nuyuwaat euh, la population de Ndiarème Limamoulaye mhm. di wax ne acteur yu fi nekk yëpp nu nos portes sont ouvertes. Mhm. pour travailler ensemble pour le développement de la commune de Ndiarème Limamoulaye avec la coalition gox yu bees. jërëjëf aada Koundoul nekk kandidaa ca gox bu njaaree njaareem Limaamu Laay fare ca Géejawaay émission gox bi doon ko dalal ci rajo réew mi FM 97.5 ki fare woon ci kàddu gi Mass Thiam ci xarale gi aadama Diallo di jaajëfal faatu Baba Fall ak Claire Christiane Gomis ci coordination bi di leen ñaanal jàmm di ko sàkk ci yéen di leen jox dig daje dimanche bi ñu dëgmal ci beneen gan ci émission gox bi ci rajo réew mi FM jërë ngeen jëf